barke yonente bi alayhi salatu wassalam ci barke alquran karim ci barke weru tedd wi ñu nek di ñaan li ci ngëneel ak tiyaaba lepp yalla bu ñu umbu ci bir ak ci biti ko defé ñu ñew comme ne ko baxo ci waxtu yi tafsir alquran di ci ànd ak imaamu Imam ji imaamu di ko ñaanal bax momit yalla yalla wéral ko di ñaanal mbolam naay bi nga xam ñu ne ci gënaawam yépp di nuyu ñi àndal tafsir bi yëpp di nuyu waa kër borom yàlla ne telegram ci njiital président Madi Cissé ak ñu ko bokkal ñëpp ba jigéen ñi soxna Aïda Sylla <clears throat> fa tabarakallahu ak ñu ko àndal ñëpp rek ci Mar Diop fa tabarakallahu di nuyu ak di ziyaare Serigne Mourtada di ñaan yàlla aar ko sàmm ko ci biir ak ci di ñaanal ma Madické yal na yàlla yokk leeram xare ko aljana waaye faso ci kawam di nuyu mbooloo mi nga xam ñoo ne ci groupe yëpp bàyyi kenn suñu soppe yi fa tabaarakalla ñu ngi leen nuyu soxna Faat Aali ñoom Asan Faal Maxtaar Gay fa tabaarakallaahu Abdu Ngom Kër Gumba ak mbooloo mi ne ci groupe yëpp daam si le président ñëpp ñu ngi leen nuyu baax ziyaara bu ko defee tey ñu ngi war ci waman aharada ahrada an zikri fa inna lahu mahisatan danka loolu boleh. moo waral sunu borom ni waman man ahrada képp koo xam du an zikri walif sama alquran ji képp koo xam ne dafa du mooyu alquran yàlla ji gemuko. ko yàlla ni na kooku xamal ni fa inna lahu nyal mahisatan ak dundu dankan guy aja khat kep ko xamni dafa du moy alquran gemul alquran beugul niti alqurani neena koku fi ci aduna dundu gu met lay dund ndeysaan ndax alquran ci bopam yalla moko wacce muy sunu tere tere bo xamni dañ ko wara jang diko di diko dundu di ko ci biir ak ci biti képp koo xam ne du moyu nga alxuraan nag xamal ni yow da nga dund dund goo xam ne goo xat lay doon fii ci àdduna te ëllëg yowmal xiyaam jàppane bu la dekkilee sa bàmmeel silmaxa ngay dekkiwaale ndeysaan képp koo xam ne dafa du mooy alxuraan ëllëg buy dekki silmaxa lay dekkiwaale dal nu ci yàlla musal mo waral sunu borom ni waman ahrada kep ko xamni dafa du moyu an zikri warif sama alquran ji bo la nexe nga xadam ko dani koku dal fa inna maxisatan dundu dan kan go xat la ho ñal ko fii ci aduna bu ko defee war na suruhoo dees na ko fang fang buñ ko waxe moy des na ko génne ci bamilam ëllëg yomal khiyam yomal khiyam bi si yowmal xiyam bu ko defee ahma moy aju gumba nee na bu ko defee ëllëg yowmal xiyaam waa jooju na buy dekk ci bàmmeelam buy génn gumba lay dekkiwaale ndeysaan lan moo tax muy gumba ndax wax yàlla ji da ko nangutoon a gis wax yàlla jii da ko nangutoon a gëm te alxuraan képp ko dumóoy rek jàppal yow gumba nga ci baatin donte yaa ngi gis ci saayir sa ñaari bët moo waral mu ne wan na suruhu dees na ko fang yowmal xiyaamatu bi su penc maa bu ko defee muy aji gumba bu dékkee gumba nak bu ko defé day laaj yalla dal ni ko am ah, na de jaaxle naa bi ci aduna dama dal gis tay ma dékki ba pare gumba lu waral lol mo waral mom aji gumba joji nak bu dékkee xam nga lu mi wax khala mu dal di wax dal ni rabbi yow sama borom lima lutax lu tax ñu fang ma ñu genn ma sama bammel ax ah, may aji gumba taman lima jaxal moy mooy waxadu kuntu basirandi basiran di gis taman bima nek ci aduna dama daan gis yalla xala mu lat koy wax mom yalla daniko ko kazalika niki noonu kazalika niki nono nga dikke gumba atat ka ci lan la dikke won ayatuna sunni aya fan na nga fatte won ko lank gëma yalla daniko xam nga lutax ñu tekki la nga gumba muniko yow dan indi lon sun aya ni li waxi sunu borom la nga lank gëmoo du moy ko mo waral tay ji nga daal di dekkiwaale ak silmax ndeysaan moo waral bëri na koo gis muy gis ay bëtam fekk dafa gumba ci yàlla fa innaha la taxmal absaaru walakin taxmal xuluubu lati fi sudur lii gumba dëgg dëgg dëgg dëgg ci yàlla mooy xol boo xam ni amul leer mooy xol boo xam ni gëmul yàlla mooy xol boo xam ni gëmul alquran mooy xol boo xam ni nangul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku dafa gumba ci baati moo waral xaala mu daat koy wax moom yàlla daani ko kazalika ni ki noonu kët atat kan la dikke woon ayat naa sunu aayi fa nas yi taxaa nga fàtte woon ko lànk gëmu ko yàlla daani wa kazalika ni ki noonu nga fàtte woon sunu aaye nag al yow ma tëy jii tunsa noonu la lay fàtte ci biir sawar isaan yàlla ne la xam nga nga fàtte ko di ko fàtte fàttelu fàttewoo ko sax da nga ko doon fàtte fàttelu yàlla ne noonu nga ko doon fàtte fàtteloo tey jii non lan lay fatte fàtte lo wat ci nay sawar mo waral muni waka salika ni non nga fàtte won sunu ay al yawma tay tun non lay fatte ci biir sawara ni waka salika nak non la nga fàtte al qur'an najis non la ñuy man kep ko xamni asrafa dafa eppal walam yuumin te gemul bi ay atire ci aye sunu borom yalla nee nonu ñu la def ta yang nga dekk zilmaxa noonu nga defoon ta yang nga fatte alquran gëmoko non la ni fayee képp ko xamni dafa ëppal jéggi doyo manam li yalla digal defoko li yalla tere bayiwoko ko képp ku mëna doon ëlëk yowmal khiyamit non la lay def yalla dani wala sabul axira mbugulum al akhirah mi lay xaar nak asatu mo gëna tar wa abu xaata mooy des ndeysaan yàlla nee na loolu mbugal la rek boo xam ne dangaa dekk sa bàmmeel rek mu feeñ ci yow waaye mbugal mi lay xaaraat ci kanam moo gën a metti moo gën a tar damooy mooy dugal la ci biir sawaat nee nañ ci yàlla musal moo waral mu ni wala xasaabul axirati mbugalum alaxira asadu moo gën a tar wa abu xaata mooy des ba faw sunu borom ni afalam yahdi xanaa gindiwuma lahum ñi leen yéen waa màkka ci lan yàlla daani kam ñaata ëhlëk naa laa alagoon xablahum la nañ jiitu woon minal xuróoni tukkee ci ay maas yam na ñoo xam ne daan nañ dox fii masaakinihum seen dëkkuwaay ya inna fi saalika nekk na ci loolu la ay atul kawtif li iwli noxee ñel borom xel yàlla ne na yéen waa Màkka dama leen laaj ñaata ci ay seekal ñoo ne woon fii di dund ñoo xam ne man yàlla maa leen alagoon ñoo xam ne dañoo ne woon ci àdduna bi daan dund Dan dox dan wax seni soxla dan dem ko ñew bis ñew ñom ñep ma faagaagal leen mbugal leen mbugal gu met xana lool warna naa doy nag ci yéen ngeen war lool waaru doy na ci ngeen war ci waaru ci ngeen xamni yeen bu leen deful la leen war ni def ñooñu rek la yeen def digal alquran ni wax mo waral mu ni afalam yahdi khala gindiwuma lahum ñee yeen wa makkah kam ahlak naa bëri na bu ma alagee xabluhum lu leen jiitu woon minal xuróoni tukkee ci ay seekal ay seekal yoo xam ne yam na daan nan dox fii masaakinum seen dëkkuwaay daan tukki dem saam di yaxantu daan def yëpp ma xëy xëy ñoom ñëpp ma mbugal leen faagaagal leen yàlla neexul ba neexul waaye inna fi saalika nekk na ca loolu la ayaatin kawtéef boo xam ne war na cee waaru li uuleen nu xee ñeel ñey borom xel képp ku a waaru nag sunu boroom wax yéefari nag ni leen bu du woon ak mbugal gi ma leen wax ne ñu ngi leen xaar ëllëg bu du woon ak loolu sama kàddu gi nga xam dama jiitu ba pare bu du woon ak loolu kon léegi laa leen mbugal fii ci àdduna mbugal met alxuraan dani walaw laa kalimatun bu du woon ak baat sabaxat bopp jiitu na men rabbika tukkee sa borom yow sayyiduna muhammad nga xadam ci suuf dani wa ajalun ak dik musaman bun tuddu buri won ak lol de la kana kon dana nek mbugal gi legi li saman di taxoo gen fi ci aduna isal yalla ne buri won ak lima wax ni ku def lu ñaaw ku moy alquran kuma weddi ëllëg yomal xiyam dana la mbugal mbugal buri won ak ndax sama kat dama raw ci ba pare buri won ak ku def lu ñaaw fi ci aduna legi la lay mbugal nga gis ko ci waaye nag comme man maa wax ni ëllëg yow mën a xiyaam dinaa mbugal jaam ñi nga xam ne maa weedu naa bàyyi rek ba bis ba rek ndeysaan ndax dara soriwul ci yàlla wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taxudun yàlla ne junni at ci yéen benn dafa mel ni benn bis ci man ndeysaan junni at ci yéen yàlla ne dafa mel ni benn bis ci man man yàlla yàlla dara yàggul ci ma maa waral déemu jàng nañ ci gannaaw ëllëg yow mën a xiyaam yéefari bu ñu dekkee dañuy deyante yaquluna in labistum illa xasran ñu naan ah ñun adduna fukki fan rek lañ fa def ñu naan adduna fukki fan rek lañ fa def bu ko defee ka gën a rafet xel ci ñoom am saaluhum tariqatan ka gën a rafet ci ñoom xel daan ni in labistum illa yowma déedéet adduna benn fan rek lañ fa def kon nga xam ne adduna yàggul is yaqulu am saaluhum tariqatan in labistum illa yowma ka gën a rafet xel ci ñoom dal li dedet aduna ben fan rek la fi defal mo waral sunu borom ni wala wala kalimatun bu doon ak bat sabahat bob jituna min rabbika tukkee sa borom yow sayyidina muhammad wa ajalul ak dik musaman boo xam ne mën naa ba pare budu du ak la kana kon dana nek alak gi ma alak lisa man di taxoog yeen legi fi ci aduna wa yow ndol makka fasbir na nga muñ halama ci kaddu yi nga xamni yaquluna ñing la koy wax ñom yeufari ndeysaan ñom yeufari kaddu gu ñaw gu ne ñing koy wax ñol mbàkk nan kii dafa gaf ah ki day njibar ah ki day nar ah ki limi wax amul ah nan kii yalla yónniwu ko ah wa yaqul lasta mursalan ki du ab yonent yonent lu ne deg na ñol deg na lasta mursalan do yonent ñol màkk deg na bal huwa asirun ki day nar rek day njibar rek njool maaka dégg na bul huwa saahirun kii ab waykat la njool maaka dégg na na yaquluna innahu la majnun ci ab dof la lu ne njool maaka dégg na moo waral àdduna ku fi nekk boo xoolee ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ñëw rek da koy muñ lu ñëw rek da nga koy àdduna moom ku fi nekk ah fokk la nga ne ci ay difficulté la nga ne ci ay jafe-jafe léeg nga dégg lu ne ñu wax la ko te ko sa der waaye nag da ngay muñ xam ne loolu moom àdduna moo ñoo ànd njol màkka gën ñep te mo fi ëppal ay non ku dul njol màkka nak bo amé ay non nak dëgg yalla wuru la jaxam waye li am solo moy nit ku ne xal ba nek ci dëgg rek bu lay nit ñi mere nan la mere ci dëgg bu lay bay nan la bay ci dëgg bu lay sétan nan la sétan ci dëgg day kon njol màkka mo gën ñep da la dégg nak ko day sax ko gis muy son rek ay mbokk ma tax muy son waaw àdduna koo gis muy son ay mbokk ma tax ñuy son ndax aduna li nit ñi wax li nit ñi tek sa ter li nit ñi def li ci ëpp say mbokk la koy def ndax nit ki la xamul amul ci yow soxla ay ki la xamul amul ci yow soxla li muy wax ci yow ak li muy def ci yow mo waral ku son say mbokk ta nga son ci say biir mbokk amna ñu la bëgg ño xamni nga avance rek nga bëgg waye ci sa biir mbokk amna ño xamni nga essek rek nga lañ bëgg ci yow mo waral nit bokay bëgg-bëgg to yalla tax bokoy mere mere ko to yalla tax bokoy bañ bañ ko to yalla tax wa an yuhibba wa yubkhadilla wa yardaluhu wa yaqdabuhu ci ca dari ya. waral muniko ko yow njol makka fas bir na nga muñ alama ci kaddu yu ñaaw yi nga xamni ne yaqulu na ngi la koy wax isa nang ko muñ de ndax inna la ma taala si góor gu mag dafa bëggoon aaya inna la itakhaw wala si na wala si na hum boo waxee mu ne ah yàlla de mi ngi ànd ak ñi ko ragal yàlla de ah mi ngi ànd ak koy rafetal kon nag yaa ayyuha allazina amanu stahinu bi sabri wa salaat jullit fu mën a nekk dafa war a dimbali koo muñ adduna li li ngay dégg ak li ngay daj ak li ngay gis ak li ngay def boo muñu rek boo muytu nga dee te sa digg du jot walaay ndeysaan dañu teg la loo xam ne wala ñu wax la loo xam ne wala ñu sosal loo xam ne bo amul ak muñ deug deug deug deug deug deug deug man nga dem te sag dem du jot bo gisee nit ñu bari di jek jékki xaru boo gisee nit ñu bari jek jek dof bo gisee nit ñu bari jek jek seen bop di tourner bo gisee nit ñu bari jek jek di waye di da lay tek pression bo xam ak attun ko jek rek so loo xam ne waxal lo xamni def lo xamni lo ne xam da nga yakku sa aduna nit ñi mu ko def nit ñi mu ko wax nit ñi mu ko sol nga jek jek rek dégg mu siiw nak ndeysa ñu dem ba ñepp gëm lool nak àdduna dafa met diiw dañ koy togn diiw dañ koy togn diiw dañ koy togn ha ah, diiw dañ koy togn nga dem ba nit ñi dila daw nga dem ba wan du bokk kenn du bokk ak yow lek nga dem ba ko jox mu naan du naan nga dem ba bo toog nit ñi dañ lay daw ha ah, nga dem ba ku jublu ku la gis guddi sax da lay tegg te lool lepp nit wax ko ci yow sos ko te dara amul te baatu dan lay tooñ baatu dan lay tooñ moom dafa firi boppam dan lay tooñ dan lay tooñ kay ci yàlla <laughs> ndeysaan loolu la Mbàkke di wax sama rakk la ndeysaan boo diw dañ ah, dañ koy tooñee kay baax na <laughs> booy diw dañ koy tooñ mu ne ah waaw yaa ko wax de comme dañ koy tooñ rek baax na dañ koy tooñ waaye daal waxoo diw daal loolu dëgg lañ wax comme dañ koy tooñ maanaam baat bi baat bi dafa tekki boppam yow boo ne diw dañ koy tooñ kon yow xam nga dañ tooñ amul kom kom ngay dañ koy tonké dañ koy tooñ jappé ko noonu waaye bo né won diiw de li ni li ñuy wax ci moom deug dé mo waral muni ni wasabbih ngay sabbal wasabi gi nak bo xol ci sala bi julli la ci nam waaw wasalli wasalli na nga julli yow ya ñol maaka bi hamdi rabbika di sant sa borom kañ khablatul wahi samsi la ñeek jant bi fenk gën julli dugg ci na kon julli suba dugg ci avant jant bi fenk gën julli ni julli foofu julli suba julli suba ngay julli toog tuuti jant bi daal di fenk sunu borom ni war na nga julli ba tey xam la xuru bi xaal la njëkk jant bi so avant jant bi so gën julli ni sax julli tàkkusaan tàkkusaan nga julli doog tuuti tàkkusaan wa min ana illayli ak ci xaaj guddi wa min ana illayli ak ci digg ak waxtu guddi gën julli dugg wa min ana illayli ci waxtu guddit fa sabbih na nga julli timis dugg si gee dugg si ndax ñaari waxtu yooyu yëpp guddi lay doon ay sa wa min ana illayl ñaari guddi ñaari waxtu yooyu yëpp guddi lay doon ñaari waxtu yooyu yëpp muy waxtu timis ak waxtu guddi yëpp guddi lay doon wa ana illayl jërëjëf moo tax mu ni wa min ana illayli ak ci waxtu guddi fa sabbi nanga ci julli waxtu guddi timis dugg si gee dugg si ñaari waxtu yëpp bu dikkee ba tey nañ ci julli amin anna ilayhi fasabbi mu ni wax atrafan neheri ak peti bëccëg peti bëccëg buñ ko waxee rek julli tisbaar dugg si na mooy digg bëccëg wa atrafan nahari mooy digg bëccëg waxtu wi ñu julli tisbaar léegi wi ñu julli jumaa léegi ñu ngi ci digg bëccëg kon aay bi boo ko xoolee waxtu julli juróom yëpp yàlla dugal na ko fi amna juga ñu koy viré nan wasabih na ngay sabbal yalla bi hamdi rabbika di sant sa borom xabla loy sam si la njëtt la jant bi fenk na fay sabbal yalla di fa tuddu yalla di fa julli ci ndol mak dem ay istixfaar waa xabla xuru bi xaal la jant bay soow ba tay fay nek di tuddu yalla di sabbal diko di wa min ana illayli ak waxtu guddi fa sabbih na fay sabbal yalla di sabbal diko di diko bak di jéggelu wa atraafan nahri ak kati bëccëg te mooy digg bëccëg ba tey na nga fay sàbbaal yàlla am ñu ko firee noonu muy lii de boo ko defee laxal la man naa am tarda sunu borom gërëm nga am ngërëmal sunu borom laxal mën naa am tarda nga am ngërëmal sunu ay bi maa tuxti min as-sawaabi maanaam mën naa am yàlla jox la yool bu bëree bëree bëree mu ni ko yow Seydina Muhammad nag yéefar yi seen kër yi rafet na seen oto yi rafet na jekkul na àdduna waaye loolu bu ko xool ndeysaan wala dana bul tàllal xëy na yi ko sa ñaari bët illaa maa jëm ca la nga xam ni mattax naa xéewali leen ko bii ci yéefar yi aswaajan ay xeet minhum ca ñoom loolu dal saxaratal xayaat taaru àdduna rek la adduniyaa bu gaaw a jeex bi man yàlla maa leen ko jox li naftinahum ngir naa leen fitnaal fii seen alal jooju waaye wa risqu rabbika wërsëgu sa borom xayrul moo gën fuuf te jox naa la ko wa abqaa te mooy des ba faw waaw nee na ko yoon jol gaa yi li na am ñoom yéefari waaye bu ci teg sa bët boo jéem xool bu leen dee jéem a seen kër yu rafet yi seen oto rafet yi seen jongama yu bëri ak ñu jekkoo addu bu ci teg sa bët mooy wala tàmm dana xay nay ko booy tàll sa bët di xool loolu jot a gis de. innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnatun yàlla ne seen alal ju bari ji ak seen doom yu bari yi lépp fitna la ci yéen laa tulhikumu amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah yàlla moo ni seen alal yi ak seen njaboot yi bu mu leen yitteel ba ngeen fàtte yàlla sa xalaat na amwaalu naa wa ahlu na yàlla ne seen alal yi soxlaal na leen seen njaboot yi soxlaal na leen ba ngeen fàtte ma man yàlla te yooyu yëpp amul solo ndax almaalu wal banuna sinatul xayaatu dunya wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayru marada moo waral mu ni wala tammu dana bul tàllal yow njol màkka xay nay ko sa ñaari bët ilaa maa jëm ca la nga xam ni ma tax ko bi ci ñoom li nga xam ni xéewal naa ko ci ay xéewalu àdduna bu ko xool loolu daal saaratal xayaatu taaru adduna rek la adduniyaa bu gaaw a jigéen jeex bi loolu dama ko loolu taaru taaru adduna rek la alal yéeg yi loolu taaru adduna rek la yàlla ni la maa ngi ko jox li naftinahum fii ngir natt leen ci rek damaa bëgg ñu gën a bew ma waral ma jox leen ci àll te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ni laa tasulu xadaman xabdun yowma alxiyaamati ata yusalu an arba an humurihi fii ma afna wa an sababi fii ma abla wa an maali min wa han hilmi ma sahu min allah neena na ëllëg yowmal xiyaam balaa benn bugu aljana ñent question yi des na ko laaj danañ laaj sa dundu gi ci lan nga ko jeexale won yalla na fekk nga jeexal ko ci lu baax danañ laaj sa waxambaane ci lan nga ko jeexaloon yalla na nga jeexal ko ci la way jël sa waxambaane ko ci wuyu téléphone rek xaliss bo am jëndé ko crédit fu la fekk nga ne ci whatsapp bi rek guddeeg bëccëg sa temps bëpp téléphone koy jox fu la fekk yaa ngi whatsapp fu la fekk yaa ngi ci youtube bi la fekk yaa ngi jokkoo jigéen ñi fu la fekk yaa ngi wax waxi àdduna weeru koor ak lu dul weeru koor lépp loolu di baaxul moo waral mu ni dama kaa def li naftinahum ngir naa leen fitnaal fii seen alal jooju wa risqu rabbika wërsëgu sa borom xayrun moo gën wa abxaata moo des yàlla wax njool màkk ni ko nag wa umur ahlaka bis salat, wa umur ahlaka bis salat. yow njol maka na nga digal sa njabot ci ñu nango julli mo waral ya ayuha amanu khu anfusakum wa ahlikum nara. ya nee na yéen ñi gëm gurgul na ngeen góorgóorlu ba fegal seen bop sawara waye na ngeen ba fegal seen njabot sawara isa nit ki dafa war a ba protéger bopam nek ci lu bax ba du dem sawara waye mu góorgóorlu ba ak njabotam mu tegg liñ ci yoon wo xamne ëlëk duñ dem sawar mo waral sëriñ ma diké sék borom yalla dal la wax naan yalla na yalla musul ci aljana gàcc ñu ne ko luy aljana gàcc mu ni moy nga dem aljana sa njabo dem sawara say soxna dem sawara lolu aljana jo xamni yang fay dem waye aljana gàcc la ndax ku soñon da ngay dugg aljana say soxna dugg aljana say njabo dugg aljana sa fami dugg aljana ñepp dugg aljana muy udkhulul jannata antum wa aswajukum tu'barun yalla yalla defal lako misal misal mo waral sunu borom ni wa amur na nga digal yow njol makka ahlaka say ñoñ misal gis nga yalla bu ne njol makka say ñoñ rek say njaboot rek bu ko waxe rek kep ko xamni ak jul nga boko ci xetu sayidina muhammad yaa ci biir waaw mo waral mo ni ko wa amur na nga digal ahlaka say ñoñ bi salati ci julli misal mo wala julli alquran lim ko tuddu bari na lol la wara lol nak moy jaamu yalla yépp julli mo ci gëna mag màgg yonent bi alayhi salatu wasalaam ne na ëllëg yowmal xiyaam jaam ñu buñ dekkee li ñuy jëkk régler ci jaam bi li ñuy jëkk xol ci jaam moy julli julli la xol ci jaam neena julli buñ ko vérifier xol ko mu bax dan na la demal aljana li ci dess jër xol waaye sa julli buñ ko xoolee baaxul dem naa la jërul ñuy xool la neen ndax julli moo gën a màgg comme baaxul jërul ñuy xool leen isa mu ngi mel ni yow mi yor sa oto di daw ci tali bi police yi bu la jàppoon fi mu xool sa carte gris bi mu jeex xool sa carte grise mu jeex wala maanaam ci misaare wala bu la jàppoon daan la li lay jëkk daan ana sa permi nga yow yoroo permis nga ne yaa ah, am de amu permis duñ fa nekk di laaj carte grise duñ fa nekk di laaj assurance ndax yow li nga def dafa garaaw garaaw boo xam ne moom jë jëfatu ñu la laaj leen ana sa permis amoo ko wala ñu ne ana carte grise oto bi yow boobaa juru ñu assurance juru ñu lay laaj layal yow nga la fa sës daal mooy gaareel ne oto bi rek yow gaareel ne oto bi rek ñu furee ko waaw moo waral ëllëg yow mal bu la laajee sa julli xool ko baaxul yàlla juru muy xool la ne ndeysaan jërul muy xool leneen jërul dootu fa nekk di xool asak dootu fa xool di xool naafire dootul xool mbokk ya nga daan dox dootul xool yenn yu baax yi nga daan dox ndax danaan la yow yu baax yi nga daan def yépp dafa war a tegu ci kaw julli yooyu yépp ci kaw julli la war a tegu waaye comme julli mooy keno bi gën a dëgër moom comme jóge na fi rek yeneen ñi tegu ci kawam dara baaxut ndeysaan maa salakakum fi saqar xaalu lam naku min al musallin wa lam naku nutximul miskin وكنا نقود مع القائدين وكنا نكسب يوم الدين حتى أتانا اليقين moo waral gaa yi dem sawara ëllëg yowmal xiyaam bu ñuy wax ak waa aljana yi bu ñu leen laajee ne waa kii ñun fi dugal bokk na ca la ñuy jëkk a tontu mooy lam na ko minal musallin ñun kat bi nekk ci àdduna daawun julli daawun julli daawun julli moo ñu yóbbee daawun julli moo ñu xoolal yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne lu yàlla bind moo ci gën jol maaka daan taxaw di fanaani naafire di fanaani naafire di fanaani naafila ba njool màkk daawul moo di taxaw mu jël ay doj di ko dugal ci faar salamtu sunnata man ahya salaami ila anistakat xaddamaahu durra min warak wa sadda min saqabin ahsaahu wa tawaa tahtal hijaarati kasxan mutrafal adami wa raawadatul jibaalu summa min zahabin an nafsihi fa araha ayyama asra comme njool màkk nag moo tolloon foofu dem ba doji xeer yi montagne yi jiir ji lépp di ko sàkko nan ko kaay ñu nekk wurus nga jëfandikoon njol màkk ne adduna taxumaa jug kon ku dul njol màkk taxul ñu wax am na ñoo xam nag weeru koor ba am na ñoo xam ne weeru koor ba weeru koor lay naafile am na ñoo xam ne weeru koor ba weeru koor lay dem jàkk am na ñoo xam ne weeru koor ñoom ñun fonke naafile bi fonkewuñ ko yeneen te danoo war a xam ne weeru koor naafila yi ñu ci def li muy baax baax julli juróom yi moo ko gën nekk farat wala nit ñu bëri danoo réer dégg nga li weeru koor naafila yi ngay def ci jàkka yi dama li muy baax baax baax julli juróom yi moo ko gën a ëpp doole moo ko ëpp tiyaab moo waral bari na koo xam ne sax du wax waaye bu ne naafila moom day dem di naafila te xamoo ni koor gi nga war a koor moo gën a farata yow boo wóorul comme wóoroo kay nu ngoo wóor looy naafile comme wóoroo looy naafile moo waral naafile yi dëgg la du farata waaye nag dafa am jamono boo xam ne jamono promotion bi am na ku ma ci waxtaan ma ni ko naafile de yaa ngi koy sàggane waaye ak a baax ndax ëllëg yow mal xiyam dana bëri say point yoo xam ne buñ ko xoolee mu manqué ci naafile yi nga daan def ci la ñuy jël mottali si jëf bu la yàlla laajoon cent pour cent gis ni yow manqué nga trente pour cent wala quarante pour cent ci sa naafile yooyu ci la ñuy jël mottali léegi nag comme yow daawoo naafile sa jëf ju farata bu matul kon ci la lay tibb ñu ah. ngi mel yow mi def examen rek léeg nga def examen manqué ay moyens yoo xam ne da xool ci devoir yi nga daan def ak ci compo yi nga daan def xooy say moyen ndax baax na ci la ñuy sukkandiku mottali nga jàll. لا إله ولا تسير واسرة وسر أخرى يلا ن أمول كن كو أخم ندنا منا يلا البكار كن أمول كن كو أخم ندنا منا يلا جيفي كن كن كون سجيفي بكرة الله يوم الخيام دم أم مانك ديو كاي موتريما ديدت مم بكو أخي صدلا تل نحن كل إمري إن منهم يوم إنسان يخرج كن كون سين بيت لا دوي سك كو كو سام مم خمول نحن دنا مات مات الولد الله يديس الله يديس Mouridou la fàcce waaye. waaw ma di ki wax ni ëllëg yow wala ku fa dem rëcc yëpp. ñu ko lu tax mu di daan def lu baax dana rëcc ma yëgoon dolli ko daan def lu bon dana rëcc ma yëgoon du ko def. yàlla yàlla dimbal kon nag julli mi ngi bi alayhi ko wax sa julli. waral mu ko wa amur na nga digal ahlaka sa njaboot bi salaati ci julli wastabir na nga muñloo sa njabot alayha ci julli gis nga julli dafa met julli kulul muñ do ko mën def ndax fajar waxtu sedd nga juk japp ah sa yene law bo waré sango nga dem sangu ji dem dox dem ci jakka ji julli ñewat lolu bo muñu do ko def mo waral wastabir alayha wastabir alayha yalla wax njol màkk daniko la nas alu ko ñu lay laaj risqan ben wërseuk njol màkk ñun na wërseuk nax na ñun yàlla naar suqaka ñoo lay wërsëgal ndeysaan jol màkk yàlla nee na laajuma la wërsëg ju bari pour nga dajaleel ma ko indil ma ko déedéet wërsëg bu bëri laajuma la ko ñun yàlla ñoo lay wërsëgal ñu ne ko lu la yitteel mu ni wala xaqibatu li taqwa danoo bëgg dal nga am mujj goo xam ne bis boo demee bay faatu dangay nekk mujj gu rafet mujj goo xam ne ci ragal yàlla lay fekk loolu rek moo am solo rabbana hab lana min wa zuriyaatina qurata ahyun waj'alna lil muttaqina imaama yal na yàlla defal mujj gu rafet lu jar di nit dana jaamu yàlla nekk ci lu baax dem ba war a faatu rek seytaane jekk ko mu dee ci weddi yàlla nit dana nekk ci lu bon nekk ci lu bon nekk ci dem ba war a faatu rek yàlla dimbali ko mu nekk ci lu baax ba dee ci moo waral yàlla xamul njëlbéen mujjantal la xam yàlla xamul njëlbéen mujj la xam mujj gu rafet la xam lay day bari na nit ko xamni bu la waxon ak ndawam ak fam jaar yeb da nga nan déedéet waye comme dem na ben instant rek mu wëlbati ko tup delu ci yalla di def lu bax rek yàlla dutu ko topati dara ci jamono yonent bi alayhi salatu wassalam amna ben way bo xamni xam ne dundam lépp juróom-ñeent fukki ak juroom ñent yu dund yeb nek ci lu bax ak di ray bakkan rek ci la nek lay ndi sax mu dem ba mu yàgg mu man damaa bëgg a tuub dellu ci yàlla borom mu dem rek la ko waxee nga ne ko ah yow koy jur ngay tuub fukki bakkan ak juróom-ñeent nga rey ko te yàlla ni wa man xatala muminan mutaxamidan fa jasaauhu jahannam benn bakkan rek ku ko rey la lay fay mooy sawru jahannam ah dellu ngay tuub de xam nga ne sawar rek nga xaj mu daal ni ah waaw comme damay dem sawar rek naa benn benn bakkan boole ko ci rek waaye ñu daan ko yebal ñu ko demal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax kuy am xam-xam moo la ëpp xam-xam mooy buntu xam-xam moom njol màkk waaye ba mu dikkee ci yonent bi sallallahu alayhi wasalaam wax ko njol màkk dani ko neem tuub nga tuub gu dëggu te dëggu gi dëggu ci yow waxuma la yàlla da lay jigal waaye lu bon li nga defoon lépp yàlla da koy wëlbati def ko muy tiyaaba jox la ko daan la tàmbali ila man taaba wa amana wa xamila xamalan saalihan fa ulaayika yubaddilu laahu si'atim hasanatin ndax wa kana laahu khafur rahim lay lisa mo waral yalla lim xam moy mujjantal waye xamu njaal ben lay lisa lay lisa mo moo waral nag boo nekkee ci aduna bi gor gor julli jote nga dem bu weeru koor ñëwee nga def ci li nga man wor ndax weeru koor ngistal amu ci fii la jaamu yàlla bu ne nit man na koo def dugal ci ngistal waaye gis nga weeru koor weeru koor ngistal mënu ci am neexutu def ndax fi man mën ngaa toog doo julli nit ñi julli rek nga jug ah liqaam dem ci sàpp su jëkk yow jaay damaa nangu jaam fekk yow boo jugee fii beneen julli gu ñëw sax doo julli man ngaa ne ci biir nit ñi di tiitaru jénne sa alal li joxe nit ñi di la gis diw moo baax diw moo baax diw moo baax loolu lépp nga koy def ci ngistal aj makka man la jot ha ah, ñu ni diw yóbbu na téeméeri nit makka nangam nang loolu lepp nga def ko publicité ko ci télé ngir lan ngir nit ñi japp ni yow ko bax la duggal ci ngistal hmm. umra non jaamu yalla waye gis nga wër ko wor xëy suba ba ngon do lek do nan nga tëju ci ni yow dong mu leer man nga nan te ken lo gis mu leer man hmm. nga lek te ken lo gis yoy yep nga bayiko te yalla rek tax ngistal amu ci ndax lolou dafa amul no ci dugal ngi sa yow bo toge ci ñi naan ñu xam ne wóor xam nga man nga and ak nit ñi julli ñu xam ne ñu japp ni yow jaamukatu yalla nga fekk doon ndax duñ ci xam dara dañuy japp yow jaamukatu yalla waye weeru ko mom bo toge ci nit ñi woor ñu lek ah dañuy xam nga ñak jom woor lool xam nga jigeen mom bu ko defé dañuy xam dafa am ngaan waaye goor bo toge ci nit ñi ni jékki-jékki naan ñu gis la ngay lek ñu gis nga ngay ñaan ah dañuy xam nga ñak jom doo war mo waral nak njol makani ni jëf ju ne nit mën na koo jëf yàlla boole ko malaaka ma ko fay waaye yàlla nee na koor kenn du ko fayal kenn man yàlla maa koy fayal sama bopp azawmu lii wa ana ajisi bii nee na koor képp ko def man yàlla maa lay fayal sama kon nag moo waral nit ki bu yàlla may wér yàlla may la xel yàlla may la kàttan at mi lépp bu neexoon yàlla mu mu ni juróomi weer juróomi woor juróomi weer ñett la ñuy woor boobaa dañ koy def waaye fukki weer ak ñaar yàlla tànn ci benn weer dong benn weer dong fanweeri fan dong te yow bu lekk waxu la bul naan lan la bëccëg gi bëccëg gi doon la wax de boo jullee suba ba fi ngay jullee timis mun salaatoo ba fi ngay jullee diggante bi bu ko lekk bu ko naan loolu dong li ci des lépp mën ngaa lekkaat loolu dong nga xam ni yow waxuma la dara waaye yow woor gi sax dafa gën ci yow sax moo waral yàlla lu mu def rek la tax mu def ko xam na ko loolu lépp la tax yàlla def ko sax mooy yàlla ci boppam maanaam doomu aadama bi la wër lay lay sàmmul wàllu santeem ndax nit ki boo wooree yow da yëg sa yaram ni mu woyefe boo wooree du bokkut ak boo wóorul boo wóorul guddi bëccëg yaa ngi lekk rek bu suba jotee yaa ngi lekk ba sa biir fees añ bi noonu takkusaan noonu bëccëg noonu guddi noonu di rek di dajale ay yoo xam kenn xamul lu doon di ko def sa biir te feebar yu bëri lekk yi ni joxe rek lekk yi ni lekk rek yu bëri moo ko waral léegi nag boo wooree sa yaram day woyefaat boo wooree da nga yëg ak wér gi yaram ci yow boo wooree da nga yëg ni yow yi ni nga nekkee woon ni nga nekkee léegi sa wàllu wér gi yaram nekkee wokkoon avant koor gi nga moo waral yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni suumu tasyon wóor leen ngeen wér waaye nit ñu bëri yaakaar yàlla dafa soxat xëy xëy rek daal ni bul lekk bul naan ah li yàlla koy bu soxla naan la juróomi woor juróomi weer ngay woor wala mu sa giir dund gépp na nga ko war bu neexoon yàlla fi mu toll ay añeg ree sax ay añum ndékki sax doom sax su dañuy war moo waral mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa nasalu ko déet ñu lay laaj risqan benn wërsëg naxanu ñun yàlla na suqaka ñoo lay wërsëgal wala xaaqibatu mujj li taqwaa wala xaaqibatu mujj gu rafet wala nga ne wala xaaqibatu mujj goo xam ne aljana ngay dëkk li la koy may mooy li taqwaa ñeel na ak ragal yàlla waxaaloo ñi ngay wax ñoom yéefari naan ko yow njol màkkal law laalu teewoon yëti naa nga dikkenu bi aayatin ci kéemaan min rabbihi wu tukkee sunu borom yéefari ñi ngi naan yónente bi ah yow yàlla la yóon ñu ne ah, mu ñu ne ko ah yow da waroon a indi kéemaan yàlla Muusaa bi yàlla yónnee aw yet la yàlla Saalih borom naaxatu ko gis nañ ko léegi yow bi la yàlla yónnee ana yow ban kéemaan ngay indi boo xam ne boo xam day firndeel yàlla la yónni. moo waral mu ni lawlaa yaati naa lu tee nga indi yow njol màkka bi ayatin ci kéemaan woo xam ne min rabbihi day bàyyi koo sa borom ah lu tee nga indi kéemaan nag yàlla daane awalam tëtihim ndax di kiwuleen woon bayinaatuma way leer ya nga xam ne fi suhufil ula nekk na ci téere yu jëkkee yàlla neen téere yu jëkkee ay tawret ay linjiil ay zabur yooyu yëpp ay kéemaan la yoo xam ne joxoon naa ko ay yonente te teewul boo leen ko joxee yéen am na ci ñoo xam dana weddoon te loolu kéemaan ay dalil la yu leer nañ kon kay li ngeen wax njol màkkam même bu indi woon leneen it du tax ngeen doon sunu borom ne na walaw annaa bu fekkoon ne ñun yàlla ahlaknaahum alag naa leen bi xasaabin ci mbugal min qabli yi la dikk la jëkk njol màkk di ñëw la xaaloo téewul danañ wax ni rabbanaa yow suñu borom lawlaa arsalta lu tee nga yónni illay naa ci ñun rasulal am ndaw yàlla xam na leen yàlla ñu ne yéefar ni ma leen xamee dafa gis nga fii mu ne gis nga fii mu ne bu doon dama leen a alak afaa njol màkk yi ñëw boo waa xam nga wala wala lay lay teg dana waaye yàlla afaa mu ni mbar alak dafa war a yónni ab yonent bu doon dafa yónni ab yonent wax dëgg yàlla yonent boo xam bu di ko daan jaamu leen yàlla lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ bu loolu amoon waaye xam nga lii ñu nekk duñ ci nekk yàlla daan yónni naa njol màkk ñuy lay mu ni même bu ma yónni loon njol màkkat bu boobaa dinaan law laa arsat lu tey mu yónni ab yónent maanaam ñoom seen lay du jeex daal loo def rek ñu wax la ca def moo waral bu fekkoon ni ñun yàlla ahlaknaahum mbugal nañ leen alag nañ leen bi xasaabin ci mbugal min xab yi la jëkk njol màkk di ñëw kon xaaloo danañ wax ni rabbana yow sunu borom lawla lu teewoon arsalta la yoni ilayna ci ñun rasulul ab yonent bo yoni won ab yonent de fanata bi hadalan top topp ay kemanam min xabli an nasila la njëkk ñuy tarxiz fi ci yowmal qiyam wa nakhsa ak la njëkk nga ni gatchel te muy dugal gi ñu dugal sawara bu lu da ngaa yónni ab yonent daal lol dum dal la nga ni te gatch gi jël la sanni ci bi sawara doyna gatch dama ni nga taxaw say fami say mbok ñepp taxaw ñu jël sànni ci bir sawara loolu doyna na gàcce ndeysaan wa wala serigne ma diggee borom yalla ne daan wax ni deug deug deug dëgg yu yomal xiyam la am ndeysaan ñu ni ko lu tax mu ni fi ci aduna man nga def lo xam ni seen wa kër rek koy xam li nga def mbir mu ñaaw mo xam seen wa kër rek koy xam kër gi rek ko xam te na ngeen fexé ba bu kenn xam bu ko wa ko léeg-léeg nga def loo xam ne waa koñ bi rek ko koy xam beneen koñ boo dem duñ ko xam léeg-léeg nga def loo xam ne dëkk bi nga dëkk rek a koy xam beneen dëkk boo mën a demee duñ ko xam mu ne ëllëg yowmal xëy am nag jaam ñëpp day taxaw ñu jëkk ñaag ñu mujj ñaag malaaka yi ñëpp taxaw def ay sàppe ngay taxaw di waxal sa bopp li nga defoon lépp ñu jël dugal la biir sawara ñëpp di ci teg seen bët moo waral gàcce dëgg-dëgg kon bisu pénc la am waaye fii ci àdduna gàcce dëgg-dëgg amu fi ndax kenn ku nekk kenn ku nekk xam nga loo xam ne mos nga koo def loo xam ne neexu sa borom te loolu jamono boo ko xalaatee mu metti la waaye bëggoo jaam bu ko xam waaye bëggoo sunu borom topp la ci boo soñoon yàlla jégg la ci te loolu sa digganteek sa borom rek la moo waral yàlla yàlla bu ñu topp ci lenn yàlla nu yàlla atti ciir mu ne waaye yàlla kum topp atti la sa jëfi bopp dugal la sa nit ku ne benn bis tooñ nga sa borom tooñ goo xam ni boo soñoon sa moroomu mbindeef du ko xam tooñ goo xam ne boo soñoon yàlla fàtte ko tooñ xam ne boo soñoon yàlla du la ci topp yàlla xamal na la ko ba pare suturaal isa moo waral nit boo ne ci àdduna dangaa war a góorgóorlu di suturaal sa mbokkum jullit comme ni la yàlla suturaal moo waral njol màkka ni man satara musliman satarahu llahu lahu fi dunya wal axira ku suturaal ab jullit fii ci àdduna yàlla suturaal la ël fii ci àdduna ëllëg yomal xiyam yàlla suturaal waaye loo xaman ne ci lu ñaaw rek bala ngaa mën a kontaan dem ci média bi ñu xey suba ñu wax ci rajo xey xëy suba ñu wax ci télévision yi ko ci internet bi diw moo def li internet bi la ngay gis diw audio bi moko wax diw mo seq diw vidéo bi diw ak diw def bala nga mëna a kontaan loolu am di jël deri julli ñi rek di xawi rek ah di yaq seen dara lu ñaaw lu nga waxal leen ko yaakaar ya ci nek da yalla xamal na la lo xamni bu ni waxon yalla mu jek jek wacce vidéo bo xamni mus def bo xamni bu ko wonal wa aduna nee nga mere ku la deful dara yàlla nim nu suturaale yàlla nim nu suturaale noonu la ñu war a góorgóorloo ñun ba suturaalante suñu biir ndeysaan na ndeysaan nga def loo xam ne wala nga wax loo xam ne bu ko yàlla wane woon rek yow boo moytu nga xaru la yàlla xam ndax nit nit rek la kenn matul nit nit dong la kenn matul waaye nag yàlla suturaal na ñun ñëpp ba kenn ku ne la nga def. sa digganteeg sa borom rek ko xam foo toog yaa ngi jégalu yàlla yàlla ma jégal yàlla yàlla ma suturaal nangam nangam nangam nangam boo bëgg yàlla suturaal nag da ngay suturaal sa boppam jul doo koy wax lu bëri mën leen xoolal xoolal xoolal wàllu sarixa wàllu njaalo ni mu sewee nga xam ne boo demee ci sarixa dañ naan la de képp koo xam ne da taxaw ni diw ak diw gis naa ko ñuy njaalo donte la nga wax dëgg nga yow sarixa da lay dóor ah, lu tax loolu mu ne njaalo koy boo demee ba koy waxal nit ba ni diiw dama ko gissal mu njaaloo ñent nit ñokay gissalo ci benn waxtu lañ koy gissalo te ki du gis dem ki ñew giss dedet mom dal dañ koy gissalo benn yoon benn seen beuti ñom ñent moy dajalo xam nga ni yalla buy wax loolu xam na ni am na nit ko xam lu wax deug la waye liñ bëgg jàngalé fofu moy na ngeen sutural rek loolu rek moy lo gissal nit ci lu ñaaw na ko sutural loolu rek ndax lepp lo xamal nit ba diko wax yalla mom xam nako da nga am jot rek damay nit la nga la nga ko xamal ba ba naan boo boo deful nangam danaa la waxal lii danaa la waxal lii damay dangaa am jot rek waaye yàlla moom xam na ko yàlla lu waaye def xam na ko comme yàlla xam na koy doy na moo waral am na ñoo xam ne lépp luy def dañuy def rek te yàlla tax ni yàlla xam na ko doy na sëkk seeda seeda am na ñoo xam loolu la jox bëggulu kenn ko xam bëggulu kenn ku leen ci gërëm bëggulu kenn ko wax ci mbooloo ñoom daal boo waxee ñu ne comme yàlla tax may def te yàlla xam na ko loolu doy na sëkk incha yalla dadi di wax yefri dal len leen waxal yow sayyidina muhammad ne len kullun kumu ci ñun ak ñom isa ñun ak yefri kumu ci mu aji muñandiku la mbiram ëllëg yowmal xiyaam ñun ak yefri yeb kenn ko ne mi ngi taxaw di muñandiku di xol ëllëg yowmal xiyaam kenn ko ne ban resultat nga am mo waral mu ne waxal ni kumu ci mu aji muñandiku la fa tarabasoo na ngeen bisu yowmal xiyaam nag bu ñëwee fa sa taxalamuuna a ngeen xam man anakan ci yéen ak ci ñun asxaaba siraati mooy borom yoon wuy ak jub waman ihtada ak kan moo gindiku ci yoon a jub ëllëg yowmal xiyaam la loolu lépp leer nee na ëllëg yowmal xiyaam ci lay leer nañ ci ñu xam yéen yéen a ne ci dëgg wala ñu ñoo ne ci dëgg day sax ko defee saar yu ñu waaj dugg nag mooy suuratul anbiyaay Killeen TV leeru diine Killeen TV leeru diine